te mooy rek gën jaa néewi laab day nekk fukki fan ak juróom muy genn wàllu weer wa in atat ndéem dikke na moom jigéen ja baadaha ci gannaaw idda ja bi waladin ci doom li dooni aqsa amadil xamli ñeel lu yées gën jaa sori diiru ëmb laaxiqa kon mu yéeg bi ci jëkkër ja illaa an yan fi yaxoo ndare bu da koo dàq bi li aanin ci rabbonte jigéen ji iddawoo moo xam dañ koo fase moo xam jëkkëram daa faatu bu iddawoo nam war a iddawoo ba àggal nag gannaaw ba ñu teg ca diir boo xam ne mat na diirub ëmb mooy ëmb xaj na fi niki juróom benn weer mbaalu ko ëpp mu daal di am doom su boobaa dañuy jàpp ne jëkkëram joojee nga xam ne moo ko fase woon ba mu doon iddawu mbaa jëkkëram jëfaatu woon ba taxan ko muy iddawu rek doom jooju doomama lu may nag kooka taxaw weddi ko miim ko ne man juruma ko su boobaa itam ñu ne ko wax nga dëgg juróo ko an nga koo misaal rek koo xam nañ koo fase woon mbaa jëkkëram faatu gannaaw ba mu iddawoo ba àggal nag ñu teg ci at mbaa ñaari at mu wëlbati ko nag léegi am doom xam nga loolu yàgg na jëkkëram jëkko mujjoon a yor ndegam sëywaatu fi moom kookaa jur doom ji bu waatee miim ko nag rëbboonteeg moom it ñu nangu la wax ndax dañuy jàpp ne rek bu ñu nee jigéen bu gisee deret tegtal la ci ne ambut loola mooy la ëpp rek ban di ca àtte waaye mën naa amb ba noppi gis deret gis nga sax booy jàng ca wàllu jaamu yàlla ga dañ lay àtteel foofu jigéen bu ëmbee ba noppi gis deret ñaata fan lay am loolu nag kon moo tax mu naa la wala yadurruha iqraaruha binqidaai xiddatiha li anna dilalata alqar'i ala baraati rahimi aktariyatun li anna alxaamila taxiidu illaa an yanfiyahu bi li aanin ji mu wax nag bu jëkkër jëree dund lay mën a rëbboonteeg moom waat ne man juruma ko waaye bu jëkkër ja xësee faatu moom loolu jeex na mënta rëbboonteeti ba tey nag bul fàtte ne su it jigéen ji iddawoo ba àggal gannaaw ba ñu teg ca diir boo xam ne matul moom diiru ëmb nu fàttalee ne diiru ëmb moom gën gaa néewam dana mat juróom benn weer yu manqué juróomi fan wax nañ ko ba tàyyi xëy na kon bu fekkee diggante ba matul loolu sax dañuy jàpp ne kon jëkkëram joojee moom ca dëgg-dëgg moo jur doom ji moo xam jëkkër jaa ngay dund moo xam jëkkër ca faatu na ndax ndegam diggante bi matul gën jaa néewi ëmb ah kon moom moom rek lañ koy mën a moomale lii mu wax ni kay mooy diggante bi mat na diiru ëmb mbaa sax mu ëpp ko ba tey ñu seetlu foofu ne jigéen ci gannaaw ba mu iddawoo ba àggal bu fekkee dafa daaloon di wutiwaat jeneen jëkkër naka mu ànd jëkkër joojee laata ñuy am gën jaa néewi ëmb mu daldi am doom ba tey dañuy jàpp ne kon doom jooju bi ko kookuy takk fekk na mi ngi ci biiram te kon iddaam jeexagutoon kon dañuy tas sëyub ñaareel boobule daldi àtte ne léegi ma nga woon ca idday ku jëkk ga daldi moomale doom ji jëkkëram ji njëkk joojee wa tarabbasat mu ñu ndiku na inir taabat ndéem sikki sàgg na bii ci ëmb waxal xamsan ndax day mu ñu ndiku nag juróomi at aw arbaxan wala yenti at xilaafun yaay wax yu siiw ki nga xam day iddawu ci fase mbaa muy iddawu ci faatu su yëgee ci boppam ak wóoloo di ko ne ah moom kat lii mu yëg boo demee ëmb la kooku mooy sikki sàkk gi kooku day kon day toog a toog ba mu wóor ko ne rek amatul lu mu wóoloo di ko ci boppam mbaa boog mu dem ba àgg ci gën jaa yàggi ëmb gën jaa yàggi ëmb nag am na ñu ne yeenti at la am na ñu ne juróomi at la su àggee ci yeenti at ci waxi ñooñu mbaa juróom nag ba noppi lam doon xel yaar ci boppam taxul mu dañ am na ñu ne bu fekkee loola daa yokku ni ki biir ba daa gën a rëy kon du mën a wuti jëkkër faaw day toogaat rek négandikuwaat ba sikki sàkk boobee deñ nde bu fekkoon ne moom na meloon rek la mel ba tey mbaa sax daa wàññiku ni ki biir bi daa réyoon léegi mu gën a tuuti kooku moom mën naa daal di wuti jëkkër ndegam ci ni nga xam ne moom la ko mu dawana indee yenn kilifa itam waxe ko noona ku ñu wax ibnul arabi rek moo ne moom faawu daa war a toog rek ba lam doon xel yaar ci boppam dañ ba set wecc waaye li li feeg mi ngi xel yaar ci boppam rek ci ëmb ak ñàkk ëmb lu yàgg-yàgg du sañ a wuti jëkkër moom la salaabale di wax naa fa in madatil muddatul madkuratu wa zaadatil ribatu bi an zaada kibaru batniha makasat xata tartafia wa amma law madatil muddatu واستمرت الريبة على حالها ولم يحصل فيها زيادة حلت للأزواج بمضي المدة وهذا هو الذي في المدونة وعند أبي الحسن وابن يونس وابن عبد السلام وشهره ابن الناجي خلافا لابن العربي من بقائها أبدا حتى تزول الريبة لمتتك نموي وكل هذا ما لم يتحقق أن حركة ما في بطنها حركة حمل وإلا لم تحل أبدا nee nañu nag bu ñu wóorloo ni li yëngatu ci biiram daal moom yëngatu bu ëmb rek lañ ko mën a jàppee su boobaa kon lu yàgg-yàgg moom du mën a séyiwaat mukk mukk li fekk loolu dañut wa fiiha nekk na ci mu dawoona mu ne law tazawwajat doonte sëyi woon na moom aji sikki sàkka jooju maanaam ki wóoloo di ko boppam ci ëmb xabla xam si ci njëkk juróomi at ya bi arbaxati ashurin ci yenti weer fa wala dat te mu jur li xam satin ñeel juróomi weer lam yul xaq kon def ko yéegal moom doom ja bi waaxidin ci kenn min xumaa ci yaari jëkkër ya waxut dat te géttaneef ko moom jigéen ja mu dawoon am na masala mu indi mu xaw doy waar moom daa wax ne jigéen ci nga xam ne da doon iddaw am nga wóoloo di ko nag ci li mu yëg ci biiram ëmb la wala du ëmb nu waxoon ko ne ko da ngay toog rek ba wóolu sa bopp baa nga àgg ci gën caa yàggi ëmb mu juróomi at moom nag ba mu demee ba digganteem ak juróomi at yi mat yenti weer dong moo fi dox mu daldi wuti jëkkër naka mu wut jëkkër jooju ñu teg ci juróomi weer rek mu daldi am doom mu ne kon doom joojee deesu ko mën a moomale jëkkëram ju njëkk ja deesu ko mën a moomale jëkkëri ñaareel ji te it daañu ko géttan moom jigéen ji géttanu njaaloo la tax duñ ko mën a moomale jëkkër ju njëkk ja moom mooy ci doom ji juddu fekk na gën jaay ak gi ëmb wees mooy fekk na mu weesu juróomi at wala moo tax dañ ko mën a moomale jëkkër ji jëkk ja li tax itam mënuñu koo moomale jëkkëri ñaareel ji mooy bi mu ko takkee ak léegi juróomi weer dong la te loolu matul diiru ëmb maanaam matul gën jaa néewi ëmb loolu moo tax kon desu ko moomale kenn ci yaari jëkkër yi te it dañuy tas sëyub jëkkëri ñaareel joojule ndax dañu daal di xam ne kon ba mu koy takk da koo fekkoon mu ëmb wa tax mu naa wa yuf saxu nikaahu thani li annahu nakaha xaamilan te nag wala mul xaq bil awwali li siyaadatihi xalal xamsi sinin bi shahrin wala bi thani li naqsihi xan aqalli amadil xamli shahran wastushkilat te lëntu loof na masala moomu li tax ñu lënt lu ko mooy dañ ne dafa njaaloo daañu ko gétan te boo dee seet limité gi ñu limité gën jaa yàggi ëmb ci juróomi at mbaa yent ca waxi ñenn ña nekkul yax bu wér bu bàyyi ko ci yàlla mbaa ci yonante bi waaw kon nag léegi moom weesu gam weesu gën jaa yàggi ëmb ci kaw wax jooju te la mu ko weesoo wenn weer dong la di daal jàpp ne kon daal moom jëkkër ju njëkk ja jurul doom ji daal koy géttan géttanu njaaloo loolu daal moo ci xaw a jaaxal moo tax mu ne wastushkilatil masalatu bi ann taxdiida aqsa amadil xamli bi xamsi sinina laysa fardan min allahi wa rasulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa yunfa alwaladu wa tuxaddu almaratu li mujaawasatihi bi shahrin wa iddatul xaamili idday aji ëmb fi talaaxin ci pase aw wafaatin wala faatu wadduhu xamlihaa moo di mucc ëmbam ba kullihi léppam wa in daman ak doonte deret la ijtama xajoj dajaloona day ñëw nag ci idday ku ëmb idday ku ëmb moom moo xam dañ koo fase moo xam jëkkëram daa faatu ñoo ci yemoo mooy rek mucc ëmb ba bu lépp ëmb ba juddoo rek idda ja jeex na waaye nag bu doom ca tàmbalee génn waaye lépp génnagut wala bu dee ay seex maanaam bu ëppee benn doom benn ba génn te beneen génnaatagut yooyu yëpp idda ji jeexagut nga xam ne bu dee muñ mën a fayli bu neexee jëkkëram yooyu jamono bu fayle itam fayli ga wér waaye nag bu lépp ëmb ba juddoo ba set su boobaa idda ja jeex na te kat ba ñu sart sax muy doom ju ne léññu la génn ca biir ba buñ ko seetloo rek ne doom la woon niki bu dee aw lumbu deret woo xam ne buñ ca sottee ndox mu tàng du ruy loolu tegtal la ci ne kon doom la woon su boobaa iddaam dal nay jeex loolu jublu ci donte day deret di dajaloo bi haythu ida subba alayhi maa un xaarun laa yadrubu wa hiya al xalaqatu waaw buñ ca sottee ndox mu tàng du ko tax a ruy tegtal la ci ne kon doom la woon te kon idda ja jeex na waaye loolu lépp nag day fekk doom ja ñu koy bàyyale baayam maanaam day fekk doom ja muy doomi yoon waaye tey bu fekkoon day doomi njaaloo rek moom duñ topp juddug ëmb ba bu fekkee ne jëkkëram daa faatu waaye lu mu ëmb moom jëkkër ja juru ko doomi njaaloo la kon nañ ko wax ne ko toppal yeenti weer ak fukki fan bu fekkoon dañ koo fase fekk mu ëmb waaye ëmb ba jëkkër ja juru ko dañ ko wax ne kon léegi toppal yetti laab nga xam ne kon lu ci jëkk ci yooyu yaar rek mu xaar la ca des bu fekkee ne ca faatu gala bu amee yeenti weer ak fukki fan te ëmb ba judduut mu xaar ba ëmb ba juddu bu fekkee ëmb ba juddu na te amagul yeenti weer ak fukki fan mu xaar ba am yeenti weer ak fukki fan bu dee ca fase ga bu amee doom te gisagul yetti laab day xaar ba am yetti laab bu amee yetti laab te amagul doom it xaar ba am doom wa taxtasibu bil ashhuri min yawmil wafaati wa bil aqra'i min yawmil wadahi maanaam bu dee dafa ëmb doomi njaaloo te fekk jëkkëram faatu mu war a iddawu iddawu faatu kon weer yi moom ma ngi koy tàmbalee ci bis ba jëkkër ji faatoo bu ñu ne bu ñu ko fasee te fekk mu ëmb ëmbum njaaloo day iddawoo ay laab ëmb ba noppi gis deret day lu jafe-jafe kon day bàyyi rek bu gisul deret ji ba am doom bu amee doom ba set ca dereti wasin wa door a tàmbalee waññ nag yetti laab wax jëgën a wóor mooy set ga muy set ca dereti wasin wa kenn du ko waññiwaale ak laab dañuy bàyyi ba yeneen yetti laab topp ca te bañ a waññiwaale laabu ko wasin wa wa illaa ndéem ëmbul nag moom ma jëkkëram faatu takal mutallaqati kon mi ngi mel ne rek iddaw yi jigéen ji ñu fase in fasada ndéem sëy ba yàqu na dugg na nag léegi ci iddaw yi ku jëkkëram faatu waaye nag mu ne la bu fekkee sëy ba doon sëy ñoom ñaar kat te sëy boo xam luñ ko seet seet ci yoon yoon day wax ni baaxut kon jëkkëram faatu na waaye day iddawu iddaw yi rek ku mel ne ku jëkkëram fase woon dong ci sartub sax jëkkër ja wéeta nag moom te bu fekkee jëkkër ja wéetutoo nag moom sax kon it daw du ko war su melee ne kuñ fase nag kon na ngay wax ne yetti laab lay doon bu fekkee ne kuy gis deret la bu dee gone wala muy mag mu naagu ci gis deret mu dal nekk yetti weer idda bi ca ka zimmiyati niki jigéen juñ fasal walëre taxta zimmiyin mu nekkoon ci ron góor gu ñu fasal walëre jigéen joo xam daa nekkoon ci diina yahoot mbaa diinay nasaraan jëkkëram itam noona léegi nag jëkkër ji moom yéefar la xam nga ne ba jëkkër ja faatoo nag mbaa mu fase ko ab jullit ñëw bëgg a takk jigéen joojule kon nañu wax jigéen ji ne ko ah bala laa jullit bee takk day moom faaw nga iddawoo idda ja nag day mel ni rek idday fase doon ci sax jëkkëram daa faatu fasewu ko du tee day mel ni idday fase nga xam ne bu dee kuy gis deret yetti laab lay doon bu dee gone mbaa muy mag ba du gisat deret kon yetti weer lay doon waxat daxala biha fa xiddatuha talaasatu aqra'in fihima fa in lam yadxul biha fala xiddata xaleeha fi talaaqi wal mawti nga seetlu foofu nag ne jigéen jooju bu fekkoon ne jëkkëram jooju yéefar takk rek moo doxoon seen diggante waaye jotewuñu woon dara bu ko jullit bëggee takk itam du jar muy iddaw wa mafhumu taxta zimmiyin annaha law kaanat taxta muslimin la jubirat ala salaasati aqra'in min talaaqihi in kaana baxda duxooli wa ala arbaxati ashhurin wa hashrin fi wafaatihi daxala biha am laa araada muslimun an yatazawajaha am laa li xaqillahi taala xam nga li nga wax léegi mooy yéefar bu jigéen boobu yéefar bu góor moo ko yoroon ba fase ko mbaamu faatu léegi nag bu fekkoon ne jigéen jooju nekk yahoot mbaa nasaraan ab jullit moo ko takkoon muy soxnaam jullit ba nag léegi faatu ko moo xam wéet naag moom moo xam wéetut ak moom moo xam ab jullit bëgg na koo takk moo xam kenn naru koo takk faaw rek mu iddawu iddawu faatu te mooy yeenti weer ak fukki fan bu ko jëkkër ja fase woon te jëkkër ja jullit it te fekk na mu wéet ak moom njëkk mu koy fase ba tey faaw ñu ne ko iddawul iddawuy fase te mooy bu dee gis deret yetti laab bu fekkee du gis deret ngir ak ndawe mbaa ngir ak mage yetti weer wa illaa bu dul loolu nag wa illaa day dellu ci bu fekkee ne sëy ba dugguwuñ ca ak yàqoom loolu nag mën naa doon sëy ba nekk sëy bu wër ñëpp maase ci mbaa sëy ba am nañu waxu yàqoom am ñu wax ak bañ a yàqoom nit ki sëyut ku tawat wa illaa dafa bëgg a wax wa in lam yakun nikaahu mujmahan ala fasaadihi bi an kaana saxiixan ittifaaqan aw muxtalafan fiihi walaw nikaaha maridin kon jigéen ji jëkkëram faatu rek lay wax ne su fekkee séyoon nañu séy bu wér mbaa boog wérut it am nañ ca wuute ci gis-gisu lislaam fa arbaxatu ashurin yeenti weer lay doon wa ashrun ak fukki fan dañ koy wax ne ko kon sa idda mooy doon yeenti weer ak fukki fan wa in rajxiyatan ak doonte ku ñu fase woon la pasem pay li njëkk faatu yi am in tam mat ndee mat nañu ñoom yeenti weer yaag fukki fan qabla zamani xaydiha ci njëkk jamonoy mbërëgam waxaalati wax an nisaaw jigéen ña ne laa ribata déet benn sikki sàkk maanaam déet benn ñaaw njort wala wóolodiku ci ëmb bi haa muy nekk ci jigéen ji yeenti weer lay doon ak fukki fan bu fekkoon sax jëkkëram pase ko pase moo xam ne pasem pay li la day daal di bàyyi iddawuy fasegam tàmbali woon ñëw ci iddawuy faatu bu fekkoon ne nag pase ma du pasem pay li kon day wéy rek ci idday fasegam nekkoon waaye du ca bàyyikoo ñëw ci idday faatu bu ñu nee yeenti weer ak fukki fan lay am nag léeg-léeg mu am ko daal di mën a séyuwaat léeg-léeg itam du tax mu mën a séyuwaat ñaari sart yi tax nag bu amee yeenti weer ak fukki fan daal di mën a séyuwaat mooy yi mu tudd ba ci njëkk mooy boo ko seetloo ba yeenti weer yi ak fukki fan jàllee fekk na àggagut ci waxtuwam war a gis deret nga xam ne moom yeenti weeri fukki fan ñëw na ba jàll te àggagul ci waxtu wa nga xam ne te la baaxoo woon a gis deret ni ki moom dafa baaxoo juróomi weer yu ne mu gis deret naka mu laab ci deret nag jëkkëram daal di faatu kon xam nga ne dana toog yeenti weer ak fukki fan te du àgg ci waxtuwam war a gis deret kooku benn bàngoo ko ba tey it bu gisoon deret mbaa la ko tee gis deret nàmpal dong la it loola ba tey baax na ñaareel ba nag mooy moom ci boppam mu bañ a ñaaw njortu ci ëmb ci boppam jigéen ñi koy gis itam bañ a ñaaw njortu ci moom ci ëmb yaar yi moom bu ci tasee rek bu yeenti weeri fukki fan matee mën naa wuti jëkkër du aajo muy xaalaat leneen moo tax saraabe di ko tënk naa falxaasilu an al muctaddata xiddata wafaatin ida kaanat gayra xaamilin wa kaanat madxoolan biha tactaddu bi arbaxati ashhurin wa ashrin bi shartayni al awalu an tatimma tilka al muddatu qabla zamaani xaydiha aw xaadat bilficli fi tilka al mudda attaani أن تقول النساء لا ريبة بها وأما غير المدخول بها فتعتد بهذه المدة من غير شرط وإلا بفكي شرط غوخون داخت نك غا شرط لغنا بفكي نمون ينتي وير ياك فكي فان دنا نيو با جال جامون جام دان جيس درت دورا اكسي كون وإلا موي بفكي نه demul noonu nga xam ne war naa gis deret moom ci ku seet nam daan def balaa yeenti weer yeeg fukki fan di mat nga tax mu naa wa in lam tatimma al arbaxatu wal xashratu qabla zamani xaydatiha bi an kaanat taxiidu fi atnaiha walam taxid aw istuxiidat walam tumayis aw taaxara li maradin aw qaala annisaau biha riibatu xamlin aw irtaabat hiya min nafsiha kon intabarat xaa mu nëggandiku mbërëg ma wala matug juróom yeenti weer in daxala ndeem jëkkër ji wéetoon na biha ak moom bu fekkee ne moom diirub yeenti weer yeeg fukki fan moom waral na cee gis deret ci bu toppoon nam daan def ba noppi nag gisu ko ci mbaa boog mu amee deret jàngoro joo xam ne moom mënta xàmmee deret ja dëgg-dëgg jay jàngoro ak ji nekkul jàngoro wala boog mu yéex a gis deret ji mënta fexe ba gis ko te la ko waral mooy wéradi gu nekk ci moom nde du nàmpal wala boog jigéen ñi ne ah nun de moom mi yaakaar nañ daa am wala moom ci boppam mu yaakaar ko ci boppam yépp ñoo bopp àttee kon day xaar ba gis deret door a mën a wutiwaat jëkkër bu gisul deret nag mu xaar ba am juróomi yeenti weer su amee juróomi yeenti weer te amatul genn wóolu di ko ci ëmb kon dal day mën a wuti jëkkër waaye su fekkee ba tey ma nga wóolu di ko boppam ci ëmb it day nëggandiku rek ba wóolu di ko ga dañ wala bopp mu toog juróomi at yi nga waxoon ni mooy gën jaay yàgg yi ëmb kon booy takk digg boobu da ngay wax ne jigéen ji nga xam ne moom la jëkkëram faatu te fekk na moom léegi ëmbut bu fekkee ne balaa yeenti weereeg fukki fan di mat waral naa fekk mu gis deret te bu toppoon baaxam na mu ko daan gise te bi yoon nag moom gisu ko ah benn ngoog mbaa boog mu amee deret jàngoro joo xam ne moom mënta xàmmee deret ci jàngoro ja ak ja dëgg-dëgg ci genn wet ba tey wala nga ne moom daal daa mënta gis deret te la ko waral mooy ak wéradi gu ko yàlla teg wala nga ni yëpp amu ci waaye jigéen ñi ci boppam ñoo wax ni moom mi day ñun defe nan ne daal daa ambu mbaa moom ci boppam moo ko yaakaar ci boppam yooyu yëpp ñoo bokk àtte faawu balaa mën a wutaat jëkkër day dem ba gis deret mbaa mu am juróom-ñeenti weer bu gisee deret moom tegtal la ci ne ëmb nekkul ci moom mën naa wuti jëkkër bu amee juróom-ñeenti weer nag mu aajowoo teeylu su amee juróom-ñeenti weer te amuñu genn ñaaw njortu ci ëmb na am ëmbut lañ jàpp daal ca dëgg-dëgg moo di ëmbut kon mën naa wuti jëkkër waaye moom ci boppam li fekk mi ngi defee ni rek xëy na ëmb nekk na ci moom mbaa jigéen ñi foog ko ah kon day moom faawu day xaar ba wóoloo di ku googee dañ mbaa boog mu am juróomi at yi nga xam ne mooy gën jaayaa gi ëmb gis nga nag in daxala bihaa da koy yeex andi waaye fa in lam yadxul bihaa fa xiddatuhaa arbaxatu ashhurin wa xashrati ayaamin tammat qabla zamani xaydihaa am laa li annaha innama kaanat tantaziru alxaydata xashyata alxamli moom daal saa yoo xam ne moom jëkkër ji wéttoo nag moom laata muy faatu kon moom bu toogee yeenti weeri fukki fan rek daal di mën a wutiwaat jëkkër duñ ca sartaat benn benn benn sart wata nas safat xaajaloo na yaari genn wàll moom diir bi nga waxal léegi bi riqi ci ak njaam bu fekkee ne kay iddawu te jëkkëram faatu ëmbut waaye dafa nekk jaam mbaa mu laal ci njaam kon diir bi nga waxan léegi ci gor mu yeenti weer ak fukki fan mbaa nga ne fukki guddi benn lañ xaaj ba moom lay am moom jaam ba kon mu yaari weer ak juróomi fan noonu la war a toll képp yem ci nag bu fekkee ne moom daa fekk muy gone mbaa muy mag moo xam naagu na ci gis deret mbaa muy ku jeesir koo xam ne xam nañ ne bu am doom mbaa muy koo xam ne jëkkëram yéetutoo nag moom mbaa nga xam ne gis na deret ci biir yaari weer yi génn fan xam nga ne nag liñ koy xewoon léegi rek iddawu faatu moom duñ ci sartu wéet ak ñàkk wéet moom faaw rek mu iddawu iddawu faatu gi moo tax qablal binaa yi aw ba àddaxoo ji saraa bi wax kon fa hiya shahraani wa xamsatu ayaamin in kaanat saxiratan aw yaaisatan aw xaqimatan aw xayra madxoolin biha aw xaadat fiiha wa in lam taxid ndéem bërëgut fa salaasatu ashhurin kon yetti weer lay doon illa an tartaaba ndare bu dafa sikki sàkka fatisatun kon juróom yeenti weer lay doon ndegam moom wéet na ñoom moom te it dana di gis deret te diirub yaari weer yi ak juróomi fan toog na ko waaye gisu ci deret kon faaw mu jàll ba ci am yetti weer bu amee yetti weer nag te amul génn wóolu di ko ci boppam ana ñaaw njort ci ëmb kon dal ni mën a wutiwaat jëkkër li mu ne illaa an tartaaba fatisatun moo di yetti weer yi ñu wax kat bu fekkee ne am na ko te wóoloo di ku ne ah moom kat xëy na ëmb ngi ci moom mbaa jigéen ñi koy gis wóoloo di ku nañ ca loola na dem kon ba am juróom-yeenti weer su gisee deret ci digganteeg juróom-yeenti weer kon mën naa wuti jëkkër su àggee juróom yeenti weer itam ñu seet ba xam ndax lañ doon ñaaw jortu ci moom ci ëmb nekk na ca ba tey wala nekku ca bu fekkee nekk na ca moom faaw mu wéy ba am doom bu fekkee ne wóor nañ ne ëmbut nag moom kon daal nay mën a wuti jëkkër bu fekkee nag wóoloo di ku ko ba léegi moo fa nekk te yëy rek ba keroog wóoloo di ku ko di deñ mbaa boob gën jaayaat gi ëmb ba nga waxoon mu juróomi at agsi moo tax sarabina illa an tartaaba fa iddatuha tisatun min al ashhuri in lam taxid qablaha fa in xaabat asnaaha xallat wa in tammat tisatu xallat in zaalat ribatu fa in baqiyat intazarat zawaalaha aw aqsa amadil xamli wali man ñeel na jigéen ca nga xam ne wadahat mucc na doom xaslu zawjiha sang jëkkëram ja walaw tazawajat ak doonte siiwaatoon na mooy amaat na jeneen jëkkër